mer lool sonn loolu jaaxle loolu waa Touba Mboul taxaw tem ci wan ginnaaw président Macky Sall mi nu wax ne dafa diggoon Serigne taxa Mbacké xalif général de murit ne dana ko talil Touba Mboul jàpp kayal boobaak léegi gisuñu dara askan wi génn ci mbedd mi wane seenum naqar. commune Touba Mboul nag buñ ko waxee ah, niñ ko mën a waxee mooy am na lu tol ci seize mille personnes population bi population Touba Mboul am na lu mat seize mille personnes. Euh, kon mille personnes yooyu yëpp itam ku ne xam na ne am na lu jaaru ci ñoom ci yàlla dogal de commune bi yaatu yaatu yaatu jafe-jafe yoon rek lañ am jafe-jafe yoon ku ne xam na ne fii bala nga fee ñëw fu ne danga fa jaar jafe-jafe yoon woo nag moo tax tey ñu ñëw fii. Serigne Bassirou Mbacke di wax ne yoon wu bon wi tax na foo natt jafe-jafe yi weesu na ko. Euh, Cheikh Maodo Mountakha nag fii mo ab dëkkam waaw képp ku ko xam rek xam nga ne Touba Mboul mooy ab dëkkam. nekk jëwriñu sëñ Touba rek. moo ko eh, yóbbu Touba moo tax itam xëy na mu fi eh, nam fi nekke woon mënatu ko amatul googu jot waaye teewul nag ku ne xam na ne jamono yu ne mi ngi fii ñëw ah, ah, bu fii ñëw nag eh, mbokki taalibe yi yëpp mbokk yi nga xam ne mooy ñooy mbokki taalibe yi di def ay daayira ak ñi nga xam ne sax duñ def ay daayira waaye mboolem daayira yëpp bu ñëwee dañ ko fi bëgg di fekk waaye saa bu fi ñëwee bu ne rek dañuy gis ne nit ñu koy ñëw di siyaare si ay jafe-jafe la ñuy àndal yu metti président yebal am nañu ñu fi yebaloon ne président leen fi yebal man mii ma ànd ak ñoom jóge Kayar fañ koy natte ba ci ba dok ba ci biir dëkk bi ñu natt ko def li war def lépp dem ci sëñ Muntaxa ne ko natt nañ ko mën a pit ñu tàmbali ko defuñu ko defuñu ko ba at mi dellu seeti muy muy daaw ci deux mille ci deux mille vingt ci deux mille dix neuf directeur Assirou ñëw na fi ñëw na ba fii ci man ñu ànd dem sëñ mun Muntaxa ca tiib mu xamal ko ne ko kat président joxe na ndigal waaye bu euh, bu bo bu bu saa naa daal euh, saa yooyu daal lu ci topp rek danañ tàmbali yoon la ko waxee waaye ba sëñ bi am ci mbégte lool am ci yaakaar ju ma sëkk waaye li ma jàpp rek mooy li Muntaxa Kan wax la damaa defe xam naa dañoo jubloo ndax sëñ bi loolu laa yaakaar xam naa président ñàkkul ne xam ne sëñ Muntaxa ngi ñëw fii mu yebal ndaw ne ko boo demee na nga nax sëñ bi rek yàpp damaa jàpp ne man lool lool loolu lan laa yaakaar ne ko demal nax sëñ bi loolu laa yaakaar waaye sëñ Muntaxa doon ku ñu nax ndax koy naxé sa mom ngay nax ndax mom dégg ngeen ci discours bu ñëk nee man lima ñëk def moy jang aduna ba nopi soog jangal islam kon son sëñ Muntaxa du ko ñu nax ndax bu fekkoon ne euh, li lu jaaru la ci moom dana ko def yoon wi kon bu kon bu fekkoon ne yoon wi waru garam la mo koy def waaye xamna du waru garam li mom waru garo état la waye nak ah du waru garam comme ñi mi seen waru garam muy président Macky kon warna defar yoon wi war na koo defar ngir jëmmi sëñ Muntaxa war na koo defar ngir population Touba Mboul bi fi nekk ndax am mbooloo am mbooloo lañ 16000 personnes fi ñu nekk yakaar naa ne ci ay voix eh, eh, bu leen jàppalee njëriñam lay doon. ci sax élection yi weesoo gun yëpp yi fi fekkee gun muy municipal yi muy président yi CL yëpp Macky Sall président Macky Sall moo ko gagné kon nag loolu waroon naa tax mu mu fay nit ñi. diggante Touba Mboul ak Kayal 15 kilomètres la. diggante Touba Mboulo Kayal maa fi nga xam ne fi la tali wara war a tàmbalee ñëw fii 15 rek la. xam nga sëñ Mountakha jamono yi ñu def euh, journée de l'élevage ci ci ci Kayal jamono yi président ñëw na fa bi mu ñëwee itam fekk na bis boobu sëñ Mountakha sëñ Mountakha ngi tiib waaye tubaam Mboulo ko war na fekk waaye nag. am am kersa gum am kersa ci président jaar ci yoon mu naqari wi ba ñëw fekk ko fi loolu la doon loolu la doon bañal président ngir kersa gum am xam ne président bu ñëwee daan am kersa boole ko ñeewante ko itam kon nag dafa mel ne mun Mountakha moom sédd na ko waaye moom nag gisuñu num sedd sëñ Muntaxa ma askanu Touba Mboul tollu ci fukki junni ak juróom benn ñoom dogu nañu ci di wax ne président Macky Sall kay dafa doon nax mun Muntaxa ci ba mu koy digg ne dana def tali bi waaye élection yii du dëgmal moom dinañ ko woon seen bopp ngeen xam ne yoon wii moo nu tax di wax sëriñ bi taxaw sax nooru ko woon a wax waaye nag noo taxaw temm ci ne na ko wax ndax président def noo dikk aw yoon ñaari yoon wax dig na ko mun Muntaxa muy xalifa bi mun munu ci dox saa yu ko diggee nun ñi loolu nooy ànd ak moom di ci dox di ci jéego ànd ak ñooñu di ko wan fi ñu bëgg mu jaar fi dig na ko dig na ko ñaari yoon sëriñ bi loolee nag antuwut nax yim nuy nax nag ëpp na ci ñun metti na nun bu nu bu digloon sëñ bi dara sax du nu metti waaye da nun lay boole booleeg moom nu ànd ak nun nu moom bi mu ko bu fekkoon ko dara yoon wi nun du nu metti kon mu bàyyi nu ci kumpa gi waaye da koo dig yoon wi ba yaakaar ko fii ne oto bu riir bi defe ne ne ñu ngi ci yoon wi te defuñu ko mbàkke ñii da dañ lay nax mu ne ma naxuñu ñu dañoo nekk ci ay jafe-jafe ma ne ko nekkuñu jafe-jafe ñi ay politiciens la dañ lay nax rek Mbàkke mu ne ma nekkuñu ci ma ne ko yow Mbàkke fa nga nekk nekkuñu fa kon li ñu ñaan mooy Macky Sall président de la République bi nga xam ne moom la war moom la tali war ñu bëgg mu sedd sëriñ bi sédd Touba Mboul sédd njaboot gi fi yeewoo ndax sëriñ bi wax na ko léegi lu mat mille habitants ñi ngi fi yeewoo ci commune bi te 16000 yooyu saa bu leen soxlaa moom soxla seeni kaddu ci élection yi fa mas a jaar depuis bi mu nekk ba léegi moo koy gagné ak 80 pour cent kon waatu Touba Mboul sédd nañ ko sëñ Mountakha sédd na ko ndax dégg ngeen li sëñ Bass sëñ Bassirou leeral léegi waaye dañu bëgg président bàyyi ko xel te xam ne bu fekkee jàpp na ne mën naa nax sëñ bi it njaboot gi wër sëñ bi moom mënu leen a te bàyyi nañ ko xel nag ci kaw bàyyi xel guñ bàyyi xel sëriñ bi ne am na neneen nuñ mënoon a jëflante moom waaye sàmm war may sëriñ bi ak sàmm la ko war may njabootam gii ci dëkk bi moo tax nii nu doxale doxale ko waaye dañoo bëgg président bay xel lii bu baax a baax xam ne defar yoon wii du dara ci moom 15 kilomètres képp diggante fekk kayal du dara tali na fi lu ko ëpp fuuf ay yoon yoon waaye yitte la ci jëmewut yitte jooju dañoo bëgg mu jëme ko ci ngi yàlla ak jëmmi Sëriñ Tuubaa waaw ñun waa Touba Mbul ku ne xam na ne lii suñu wàll ndax yar nañ nu teg teg nañ nu ci yoon waaye Macky Sall nag lim ñuy def dafa ëpp xam nga sëñ bi léegi sëñ bi moom nax na koo naxa naxa ba nga xam ne nax yi nag ëpp na léegi nag ñun ñoo jël suñu wàll personnel ñun ñoo jël suñu wàll léegi ñun population Touba Mbul commune Touba ñoo jël suñu wàll 2012 à 100 pour cent la gagné commune bi le 24 100 pour cent la gagné Touba Mboul léegi nag jël nañ suñu wàll suñu wàll ñoo ko moom téye nañ ko ñun dootuñu ko woteel te sëñ bi bëgg def ko bëgg-bëgg sëñ bi dootuñu ko woteel te sëñ bi bëgg def ko. Touba Mboul di commune rurale nekk ci biir département bu Mbacké digganteem ak Kayel toll ci fukki kilomètre ak juróom bokk ci dëkk yi nga xam ne mun Mountakha Mbacké dina fay faral di fare lu bare bari. Thank you.